السلام عليكم ورحمة الله أه، مكين نيلي ني لن زيار نان بالحق نان برم بي بولي جبل أه، ني سيتي دروس الخليل في الفقه على مذهب المالكية مي درس يغا خاني مو أجوتي فقه مو جوريس بريزانس يغا خاني موم لا ني براتيكي أه، سونو دين دي دين الاسلام تتير بابني واخ الشيخ خليل جزء الاول تاي ني بين فصل بيغا خامتاني moo jàngale ci wàllu li ñuy tuddee sang sang mooy lan dàll la woo xam ni boo ko solee mën nga ca julli ci dàll woowa te loola lislaam dala koy may dàll woowa nag der lay doon boo xam ni kaw gi ak suuf gi boo ko solee am na charte yuñ lay may pour nga mën caa julli te bu heure jàpp jotee doo ko simmi da ngay jàpp rek massa ci kawam dem julli ci mu ne faslun ruxisa yombal nañu li rajulin ñeel góor wa mraatin ak jigéen wa in mustax mustaxaadatin donte ne jigéen ju am jigéen ju eh, kii la jo am deretu jorgel la mooy deretu goo xamante ne feebar la gi ci moom kooku du ko teree julli moo xam ma ne bi xadarin ci teew la mooy tukkiwul aw safarin wala da nekk ci tukki lan lañ yombal ci ñoom mu ne masxu jawarab mooy masa mën nañ ko tuddee kawas bandaas la mais kawas la ay dafa xeetu kawas bu muy doon boo xam ne julli da dañ ko deral maanaam li ko war der lay doon zahiruhu biti ba wa batinuhu ak biir ba mu ne booba yombal nañ jigéen ak góor mu sol ko mu ne wa xuf xuffin ak sang sang mooy dàll woo wax tamit yombal nañ ko mu sol ko wala wa xuffin donte ne sang la bu nekk ci kaw sang maanaam ñaari sang yum tegale la dafa sol dàll bi tegaat beneen dàll ci kawam dàll bu woyof lay doon woo xam ne der lay doon woo xam ne day mel ni kawas kaw gi ak suuf bi yëpp ba noppi ñu rabb ko lañ tuddee sang tax mu ne wala wa ala xuffin doon tene dafa tege ci kaw sang nee na boobu maye nañ ko nit mu julli bi mu sol ko waaye nag mu masaa ko it maanaam buy jàpp bu ca yegee mu masaa ko te bañ ko simmi wala di pour raxas ay tànkam mu dem julli waaye nag bi koy masa bi la xaailin du am lu dox seen diggante masalan du sol ay gants wala mu bànd loxo bi pour masa ci kawam déedéet loxoom direct mooy dem masa ko katiinin comme lu mel ni ki ban illal mihmaza ba mu des mihmaz mihmaz wala digganteem ak sang bi kon bu koy masaa war na ko dindi li ci ne ba mu set mu masa ci kaw sang bi loolu la ci jublu mu ne illal mihmaz ba mu des mihmaz benn genre der la boo xam ni ñiw faral di war fas yi buñ koy sol dañ koy dugal seen biir tànk yi solaale ko ci kii bu gàtt la boo xam day jàpp diggante cheville bi jàpp sësten bi wàcc ba ci suuf xam ne day war tànk bi mu tuddee mihmaz mu ne bu dee dafa sol sang teg ca loola nee na boobaa mën naa masaa ci kawam ne wala xaddin nag amul limite sang kenn du leen boo ko solee aljuma da koy simbi samedi wala dimanche boo ko solee altine da nga koy simbi déedéet amul limite lu tax mu ne bila bi charte nag waaye dafa am ay charte yuñ koy masaay am na fukki charte juróom yi pour sang bi la fukk juróom yeneen juróom yi pour ci koy sol la juróom yi nga xam ne pour sang bi la mooy jildin der lay doon jildin tahirin der bu laab lay doon du doon deru mbaam xuux du doon deru mbaam du doon deru deru lu dagana lekk lay doon tax mu ne jildin tahirin der bu laab lay doon ba noppi xurisa dañ koy rab o noppi wasatara mu di wër mahallal fardi place farata bi maanaam mu sut mu mën a muur place farata bi li ngay booy jàpp li nga war massa ci sa tànk diggante suuf gi ba testeen bi yëpp sang bi ne mën a muur loolu pour nga mën koo massa bu ko matul rek sang bi mënoo mënoo cee julli mën nga ko sol nag doxi say soxla boobaa mais du sang bu ñu mën a yàlla moo ne wasatara xallal mahallal fardi mu te mu muur place farata bi mooy ñetteel bi ñeenteel bi mooy wa amkana tataabuul machi te jàppanal ak dox gi maanaam mu doon song boo xam ni day xat ci sa tànk bu booy dox ngay soox wala doo ca mën a dox wala nga koy sol dox di muy simmeeku déedéet waxuñu ko da nga koy sol nekk ci à l'aise pour mën cee dox mooy ñeenteel bi mooy wata tataabu al machi bihi yaa dégg bi taharatin ma tamit eh, juróomeel bi mooy mu doon laab goo xam ni bala nga koy sol da ngay laab laabuk ndox mooy da ngay jàpp ba set raxas say tànk boo mu set doog ko mën a sol boo ko solee nag bu la ci heure julli fekkatee boo jàpp boo ca yegee nga masaluk nga masaku moo tax mu ne bi taharati ma in kamulat ci matuk euh, laabug ndox laabug ndox gu mat sek ci la koy ci la koy amee kon juróom yooyu mooy tax nit mën a sol sang day doon der day doon der bu laab doon dellu deru lu lu xaraama lekk doon lu ñu ràbb doon lu mën a muur cëru farata bi yëpp booy raxas tànk bi ba noppi boo ko solee nga man caa dox du xat wala nga koy ngay dox muy simmeeku yooyu ba noppi bala nga koy sol nga laab laabu ndox gu mat sëkk léegi yeneen juróom yi nga xam ne mooy farata pour ki nga xam ne moo koy sol mooy bila tarafuhin du ko sol pour noflaay doo ko sol pour noflaay dafa sedd nga ni xaaral mooy sol sang pour sedday bi ba noppi bugg ci jul déedéet da nga koy sol jubli ci jaamu yàlla wa isyaanin wala sol ko pour mooy yàlla jëm ci place mooy yàlla boobaa bu heure julli jotee mënoo boo jàpp mënoo koo masa da nga koy simmi boobaa valableul ci yow moo tax mu ne wa ak sol bi wa isyaanin ak mooy bi lubsihi ci sol ko boobu mooy ñaareel bi ñetteel bi aw safarihi wala ci tukkeem maanaam euh, mooy ko ci sol go wala sol ko ngir tukki tamit man boobaa du ko mën a masa di tukki rek na xaaral ma sol sang mu ne boobaa fala yum saxu doo ko mën a masa kenn du la ko may boobaa valable ci yow oh, moo tax moo tax fala yum fala yum saxu deful masa kon waasiun sang boo xamante ni sang bu yaatu la maanaam sang bu rëy la bam dafa ëpp sa tànk kenn doo ko masa wa mu wa ak boo xam ni dafa xotteeku qadra sulusin lu doog ak eh, eh, eh, ñetteelu kemuk ndëgg bi maanaam tànk bi boo xoolee ceer bi yëpp dafa xotteeku booba sang boobu doo ko mën a masa ko mën a masaa wa in bi shakkin don te dafay sikki sàkkal naan ndax lii mat na ceeru tànk bi wala déet don ne day sik sàkkal lool sax du ko mën a masa kon xotteeku bu tuuti rek lay am pour nga man ko masa kon juróom yi mooy yi nga xam ne mooy sang yi ñu war sol pour man ko masa doo ko sol ngir noflaay wala ngir mooy yàlla wala ngir tukki wala mu doon loo xam ne dafa ëpp sa tànk wala mu doon loo xam ne dafa am xotteeku bu mag euh, moo tax mu ne bal duunahu bu dee yées na ko nag baax na fekkee ne nag maanaam xotteeku bu ndaw la inil tasoqa te ñu ñaw ko rek nee na baax na nee na kam kamun fatixin lu mel ni bën bën tamit eh, bën bën boo xam ne saxara bu ndaw la nee na kooku mën nga ko masa wàññiwul dara léegi mu ne fala ñu ngi ci doot du masa ba tey yi nga xam ne dañ koo tere aw xasla aw xasala rijlayhi wala mu raxas ñaari tànkam fa labisahuma mu daal leeni sol summa kama kammala top mu mottali rijlan beneen tànk bi fa dakhalaha mu daal di koy dugal bu ba do meuna massa masa sang bobu tamit manam ki nga da fay japp euh xam nga dañ nek taharatun kamila taharatun ma'i kamila maanaam laabug ndox gu mat sek moy da nga japp ba japp la jeex ngay dogo sol sang bi moom dafa ñew raxas ben bi dal sol raxasat benen tanki bi dal di sol neena koku du meuna massa masa bu heure julli jotee da koy simmi dem jàppi kon da ngay raxas sa door koo sol pour doog meuna massa masa فتحمني ثم كمل رجلا فمدال دي موتالي بنن تانك بي فادخلها دالي كوي دوغل رخص بنان تانك بي دوغل رخصات بنان تانك بي دوغل كوكو دوكو منا مسا تمني حتى يخلع الملبوسة لدول دفا سمي لمو صالون قبل الكمال نجك موي مات مانام دفا سمي تانك با رخص نياري تانك يب بمو مات مدور لين دوغل doogo mana masaa lool maanaam bala nga koy sol kon foog nga raxas say ñaari tànk ba mu mat nga doog a mën a sol ñaari sang yëpp mais may la raxas benn bi di sol di raxasaat beneen bi di sol bokkul ci charte yi tax bu heure julli jàpp jotee wala booy jàpp nga masaa ko boo deful loolu rek bo waxtu julli jàpp jotee dang nga koy simmi nga jàpp raxas say tànk doog a mën a solaat wala muhrimin mu ne tamit mooy ñu ko tamit euh, wala muhrimin waxul euh, ki nga xam ne dafa armal tamit kooku lam yattur lam yattur te loruwul mooy ki armal ki nekk ci aju màkk wala ci umra mu armal sol armal ba doppi mayuñu ko mu sol sang te fekk nekkul ne koo xam ne ku feebar la fa am feebaru tànk wala yu demee noonu booba mayuñu ko mu sol sang fekkee na nag ku am ngàntu lool na nag mën na ko sol mu ne wa fi xuffin ak sang boo xam ne xusiba dañ ko bu dee ci boo xam ne xusiba da nga koo këf neena na loolu taraddudun am nañ ci deng deng manam sikki sàkk ndax man nga waxtu julli jotee boy japp nga massa ko pour julli ca wala lo massa wul rek lo manul masa mono ci julli ñu xam loolu lo mana massa masa nga ci julli lo manul masa mono ci julli ki nak dafa fekk sangu jamm rek mu keuf ko bu ko keufé ci borom dal di daw légui nak ndax koku sol ko waxtu julli ba jotee boy japp ndax dina ko mën massa masa wala diet mono ne loolu am nañ ci sikki sàkk manam waxuñ ci wax ju leer wala labisun du caageenug sol ko li mujarradil masxi ngir man ko masaa rek ngaar ngir bañ maanaam ngir ngir masaa rek maanaam ngir bañ di raxas say tànk booy jàpp rek ngeen def mooy sonal daal xaaral ma sol sang ñen kook tamit tax waxul ñuy taxu ñuy wax aw li niyaam li li yanaama wala mu sor ko pour ngir pour muy nelaw tamit pour tëdd nelaw waxuñu ko dafa sedd rek ngeen xaaral ma sol ay sang mu ne wa nekk na ci nag wa fiha bo demee ci mu dawwana maliki nee na yukrahu dañ ko eh, nekk nañ dañ koo sib dañ koo sib waaw fekkee ne ci mu dawwana la wa tax mu ne wa kuriha sib nañu nag waaw ki nga xam ne daf koo sol ngir masaar wala mu sol ko ngir tëdd na nee na boo demee ci mu dawwana nee na wax jooju dañ koo sib mais bu dee ci Xalil lañ koo tere moom mu ne wa kuriha sib nañ xasluhu raxas ko raxas sang li la sant mooy nga masaaku raxas ko nag boo defee boo defee def nga lu jéggi dee moo mu ne sib nañ ko wa takraaruhu ak baamuwaat masaa bi masaa ko di baamuwaat masaa bi tamit sib nañ ko wa tatabuu gudunihi ak di euh, toppalante maanaam kii xóot xóoti di settantal xóot xóot yi nekk ci biir na pour masaa loolu tamit sib nañ ko dañ ne leen masaa rek nga mu wàcc ma wa batala dina yàqu nag bi xuslin sa masaawu sang dina yàqu bi xuslin ci ci sangu boo xam ni wajaba war na boo solee sang boo demee boo yëgee so soxna wala nga tëdd nelaw gént boobaa boo yeewoo rek booy ba xam ni bu la sang waree rek sang boobu mën a toog ko masa fu nga dem sangu ji farata ba set doog ko mën a solaat jàpp ba set doog ko mën a solaat pour mën a masa wa bi xirqatin kathira ak xotteeku xotteeku bu mag tamit bu ci amee doo ko mën a masa wa bi nasin aksari rajil aksari rajilin wala simmeeku li ëpp ci tànk bi rijilin simmeeku li ëpp ci tànk bi it euh, simmeeku nee na kooku it mën a toog doo ko mën a masaa tamit li saaqin li saaqi xufihi ñeel ndëggu euh, sang bi maanaam simmeeku ba euh, dal li dal li simmeeku ba romb suufu tànk bi nee na lal aqiba waxul mujj ga nag mujj ga taxul ñuy wax suuf tànk bi mooy wax parce que loolu mooy li nga xam ne mooy mooy di gën a am importance tànk bi mooy dëgg bi mu ne wa in nazaahuma bu fekkee ne da ko da leen a simmi baadara na gaaw da nga koy def muqaddam da koy jiital taqdim wa in nazaahuma bu leen simmee baadara na gaaw lil asfali masaa leen jëm jëm ci suuf da nga dégg aw alayhima wala mu simmi li gën a euh, kawe ci ñaari tànk yi بادر النجاو تمت إلى الأسفل مساجم تسوف أو أحدهما ولو مسمى بين نتشين يوم نار تمت بادر النجاو مسال الأسفل جم تسوف كالموالات كم من منجلة من منجلة مسابي وإن نزع بريدة فسمنا رجلا تانك وعصر وعصرت دلجة الأخرى بنن تانك به وضاق الوقت وتوقت بدل خط من وقت بلين مجيح برجلي لين لما يبرنجو جلي تلين مجيح booba fa fii tayammumihi nekk na ci tiimam aw masxihi wala masaawam alayhi ci moom yaa ngi dégg aw uh, aw in kasurat wala bu fekkee ne dafa bari qiimatuhu xaymay sang bi aqwaalun ay wax wa illaa bu dul loolu musdiqa daf koy xotti wax jooju mooy lan moo ki nga xam ne dafay raxas dafay jàpp ba yegg si tànk bi muy masaa mu masaa benn bi beneen bi xat te léegi avant muy xalaat pour mu dindi ko yooyu waxtu bi jeex léegi ndax day dem tiim yi day bàyyi lool tiim dem julli gaaw euh, bu fekkee ne maanaam day bàyyi lool tiim dem dem tiim julli gaaw wala day wut leen seet wala kii bu xotti sang bi pour yeggali njàppam mu euh, ne loolu am nañ ci ay wax ay wax yu ci ñëw ñetti wax yu ci ñëw bu fekkee ne euh, ñu bu fekkee ne waxtu bi dafa xat te sang bi dafa xat ci tànkam pour mu simmi ko mën na jël jafe ñu ne bu dee bu dee xaalis ba alal jëm ca def bariwul maanaam lim ko jënde cheru lool boobaa mën na koo xotti di raxas tànki am ñu ne déedéet day day dem tiim daal di dem julli ci am ñu ne déedéet da koy bàyyi noonu mu daal di euh, tuddati euh, da koy da koy bàyyi noonu daal di massa ci kawam rek dem julli ci ñetti wax yooyu moo ci ñëw ne wanu di man sopp nañu nag nazuhu mu simmi ko kulla jumaatin chaque aljuma gis nga kon mooy wane ne amul limite bi mu doon wax naan la jur sàngam koy sol simmi ko nangam waaye aljuma sopp nañ mu simmi parce que dafa sangu for sangu juma moo tax sunna la wa wadaa yumnaahu ak teg ndey joorom loxo nday joorom ala atrafi asabihi ci suufu baaraamu tànkam yi moom lay jàngal nag boo koy masaa nan koy masaawee mu ne da ngay sa loxo ndey teg ko ci sa ci sa euh, ci sa euh, ci sa kaw kon kawu tànk ndey joor bi wa yusraahu ak loxo càmmoonam taxtaha ci suufu tànk ndeyjoor loxo ndeyjoor moo nekk ci kaw yus loxo càmmoñ nekk ci suufu tànk bi bu bu ko defee nee na wayu mir ruhuma mu daal di leen rombale ñoom ñaar li kaabayhi ñu daal di dem ba ci testen bi ndeyjoor maanaam da ngay teg loxo yi ci suuf daal di massa jëm ci kaw léegi nag mu ne yusra ndax càmmoñ tànku càmmoñ bi kadalika noonu la koy defee maanaam ni mu masaawee tànku ndeyjoor bi jël loxo ndayjoor teg ci kaw loxo càmmoñ teg ci suuf ndax bu dee tànku càmmoñ tamit day jël loxo càmmoñ teg ci kaw jël loxo ndeyjooram teg ci suuf awil yusra fawqaha moo tax mu ne awil yusra wa halil yusra kadalik ndax noonu lay def ci tànk càmmoñ bi mooy jël loxo ndeyjoor teg ci kaw jël tànk loxo càmmoñ teg ci suuf awil yusra wala loxo càmmoñ bi fawqaha mooy nekk ci kaw tànku càmmoñ bi loxo ndeyjoor bi nekk ci kaw euh, ci suufu tànku ndeyjoor bi mu ne loolu tawilaani am na ñaari tawil yu ci ñëw mooy ñaari wax yoo xamante ni euh, bokkul daal ñu jamtal la moo tax mu ne wa masxu alaahu ci kawam tamit sopp nañ ko wa asfalihi ak suuf ga kon gis nga masa ci kaw gi ak masa ci suuf gi ne tamit lu ñu sopp la waaye li ci des dafa doon loo xam ni lu war la boo ko bàyyee rek da yàqu da mu ne wa batalat dina yàqu nag in taraka ndem bàyyi na alaahu fa gën a kawe bu bàyyee fi gën a kawe ci sang bi masaa na masa bi dafay yàqu laa waxu ma nag bu dee da bàyyi fi gën a suufe bu booba fa fil waxti bu julli woon day baamu baamu waxtu kon boo ba boo masaawee sang masa ci kaw gi bàyyi suuf gi booba waxtu wi nga julli woon dañoo sopp nga baamu ko bu dee jotoon nga cee julli waaye boo bàyyee ci kaw gi massa suuf gi boobaa massa boobu dafay yàqu boo ca julli woon julli googu da ngay dem nga baamu jàpp la massa ko daal di julliwaat loolu mooy li nga xam ne moo ñëw ci masala li ñuy wax alxuf muy sang nga xam ni bariwul Sénégal ba demee ci réew arab yi la gën a bëri surtout ñi dëkkee désert yi nga xam ni dañuy faral di dox ci désert ci suuf lu bari ñoom ñooy gën a bari lañu koy sol yéen yéen kilifa diina yi dañ faral di ko sol waaye sunna la yonent bi sallallahu alayhi wa def daf def daf sol du bari sol sol sang sunna la waaye charte yi nga koy sonee solee mu ngi nii kon li koy tax a jóg mooy jaamu yàlla objectif sol ko ngir yéen di ko barkeeloo ndax yan sallallahu alayhi daf ko daan sol sol ko di ko barkeeloo di ko sol ngir jaamu yàlla te bañ cee mooy yàlla te lépp mu doon loo xam ne lu sell la wafaqana allahu wa iyyakum ala taatihi wa sirrana alaykum wa rahmatullahi